ndeysaan xoolal ma li ndeysaan xelel caaroy baa ngi noonu ehe Coly Faye numéro 2 xoolal lii ndeysaan mu ngi ànd ak waa Caaroy yëpp Reug Reug noonu ci gannaaw yàgg maar ndeysaan tey dafa mel ni caaro yëpp a jigéen un champion Reug Reug moo ngi ca ginnaaw yàlla eh, soq bu ndaw ñoo nak soq ma mag mu ngi foore écurie Falay Balde waaye cargo écurie Malika Mbolo moo ñu woon ginnaaw moom cargo saxatal na ko soq taxawar kenn ku ne tànk na joor nga jiita a ah, cargo jël na tànk ba jël na tànk soq génn jë jàppante nañu jàppante nañu soq bu ndaw ak cargo ah attention ay waay soq mu ndaw daan na cargo soq mu ndaw daan na cargo soq mu ndaw daan na ko rak rakk soq la noo bokk ndey ak baay waaye fi mu waree mooy écurie Falaye Maria ci gis xoolal la muy diw Nandi Fall Nandi tey dafa mel ni beneen faset facette la ñëween eh, eh, eh. xale baa ngay joogaasu yàggmaar xale bi dafa mel ni am na confiance dëggantaan da waar daal daw na Nandi daw na <laughs> attention waa Grand Yoff mbooloo kole ngay joow ngay joow ndeysaan suñu yaay ndikku cuun ay woy waaye yàgg maar koli faya ngay joow moom bër waaw arbitre sifflé moo woon ginnaaw Saamu Yaboy Yoff moo jàkkaarloog ñun fete suñu ndijoor Babacar Modou Feugeula ak Saamu Yaboy Saamu Yaboy daal Yoff la ware waaw Modou Feugeula moom rakku Feugeula la moo féete à Saamu Yaa booy féete muy combat boo xam ne daal yaakaar naa war na mën a neex daal ci ni ma leen gisee nii parce que nag boo xoolee tolloo nañ ci taxawaay nañ ci lépp daal macha allah Saamu Yaa booy nag moom waaw waaw mu ngi noonu daal bàyyi naa ko ngome ni Yaa booy. daal bu demoon bawal du lam. waa non bawal moom bëgg nañ Yaa booy trop. waaye dama ngome ni ak ci neen yi. exactement dama daan sax moo gën a wóor. Babacar ah xoolal. gëdd na ko Modou Feugeula il est trop confiant Babacar jege ma laa ilaha illallah Modou Feugeula dafa ànd ak ba mu ëpp waaw ndeysaan rakku mbër la Feugeulaay sama mag Daouda Sandis yaroo ñoom nees Tidiane Faye ñoom Sita ah war na mën a bëree bopp ak xam-xam man daal Daouda Sandis moom lay supporté man ah Daoudaay sa mbër Daouda Sandwich. waaw waaw yeggal ci Sandwich ba. Daouda Sandwich voilà. <laughs> xoolal. waaw ndeysaan la mu tudde boppam a neex. gis nga. eh Modou Fagala mi ñam na ko benn. ñam na benn mbërëm Père Max Mbargane la. xoolal gis nga eh perkil ba. Roné Ngong. eh boobu bu dalee. da toog bu la dalee nga dellu fa nga jóge woon da ngay dégg. xoolal. waaye Sàmm Yabo ngi dox ci koom ndànk-ndànk. dafa tey. ñam na droite xoolal la muy sànnee techniquement. la ko ñam cokkaas. Mm. day dem mel ni ku koy fël-fëlaale. voilà bu jógee rek gis na. ah xoolal jàpp na ko ah, daw na moom te saako ya. gis na génn na. saamu yaboy lee wër. songo bi moo ko daa bëgg mu xeex mu wàcc jël ko. mu ngay defaraat téere ya. avertissement Modou Feugeleu. am na ñu bañ. waaw père Max Mbargane bañ. mais biram yeggal ci ki bañ. non dañoo bëre ba génnandoo xam naa loolu la. a ah, gars yi daal boo génnee dañ lay jox avertissement moom. ñoo ngi leewtoo ñaari xëy si caméra bi biram si kaddu gi. jën tuuroo ba tuuru daal fi mu nekk nii war naa mën a jar 200. ngoon nañu Babacar xoolal. waaw dañoo jàppante ca kaw. jàppante nañ ci kaw ah. jàppante ca kaw la amu ngay yónnee ay Touba ci kaw la. Ah. na ngem moom Saamu waaw Saamu na ngemb ñaari loxo yëpp dugg na ci dëndu ngemb la te xam nga bii dafa bëgg mu bàyyi xalaat naa foofu su fi action amee jël war na mën am foofu daa bëgg mu bàyyi parce que ba mu jàpp ko bàyyi wulee xoolal gis nga boppam nam ko tegee ci dënd ba gis nga Modou Feugeule jàppoo de ah. moo Feugeleu tey ngaa jàpp. ah Modou Feugeleu jàppal. ah jàpp a wóor Modou Feugeleu. ah ah yii jàpp gën a wóor. moo gën a wóor de. tey ngaa jàpp Modou Feugeleu. <laughs> yéen a jàpp caa gën a wóor. bu kare ngay door. ak du danga am talu Modou Feugeleu. bu ka ree. eh jàpp gën a wóor. jàpp gën a wóor de. gis nga. voilà Modou jàpp na. am na ngemb. waaye ba léegi Modou jàppul de Babacar. loolu gis nga mu ngi koy yónnee yu sew ca suuf daa bëgg mu siggi boo jegewaatee saako yi 15 pour cent yi dem. lu nga ko wax de. ah fàq na ko Modou fëgal na ko waaye. ah mbaa fàq boobu sax. saa saamu yaboy daa bañ fàq ba. gis nga saamu yaboy ngay dóor xale bu moo ngay dóor saamu yaboy bu yoof ah jël na ko saamu yaboy mu ngi koy kal da ko bëgg a daan di da koy daan di. ñetteel baa ngi noonu. da ngi noonu. waa Lamsaar ak jàmm gën si kaw mbaaw la. dëkku père Max Mbargaan. saamu yabo waaye Coly Faye tey wàññil takkaay yéen. ah moo doon nekk keesu yabo benn yoon. doy na waar de. bii saam daal doy na waar. arbitre sifflé waat na. saamu yabo yi. ak Modou Feugeula. bëree guñu lu neex de biram bëre bi des naa neex ci seen côté. waa des naa neex xam nga Modou Feugeule dafa mel ni xeex bee ko arrangé. yi dañoo war di bëree. waaw. xoolal ma li ñu waaw loolu loolu bokku ci xeex ba bokku ci ñaar ñoo xam ne nekkuñu ci contrat waruñoo mën a xeex. loolu ëpp na am ah. boo wattuwul yoon dana ci am place policiers dem nañ xale yey raxasu nañu ñu ngi lewato lay xeeñ diggante soq wala nandi faal digga ma ki nga xam ne moom mooy dóorante boobu amu ci woon wala léegi mbir yi jeex géew baa ngi te ñaari mbër yi sax doorante wuñ de ay accompagnant ñoo xeex. parce que amuñu droit di xeex ñoom accompagnant dañoo war a teey. mbër soo ko ndee ci làmb doo ànd ak moom di ko xeexle. da nga koy concentré loolu ci biir bëreem ngir bu arbitre soufflé mu xam lu mu war a def. man daal Babacar bu ñu summee ko woon sax dugg ci biir def ko jooni jooni moo gën a wóor. waaw moo gën a wóor ay xeex ci biir. xoolal Saamu Yaboy na benn il a la Saamu Yaboy. Ah xoolal na muy déplacé woo gis nga ah Modou Fagala sëkkatal na ko gis nga jàppante xeex ba Modou Feugeula mi mbaadu da ko bëgg a kawo a ah, jàpp na tànk ba jàpp na tànk ba war jargaloon na nag moom daw na ak moom a koy daan ah war na ko nobe way penanti penanti daan na ko oh Saamu Yaboy Saamu Yaboy da ngay daanu penanti ba Samba tas na wër ndomba penanti la waaw tas na Yaboy ba mënee su koo Yaboy ba yàqu yaboy ba yàqu na Modou daan na ko. Saamu yaboy yaboy ba yàqu yenu na ndaala yenu na njàqali ehe eh. ngay war geew gi Coly Faye numéro 2 mu ngay daw di war geew gi mu ngay daw di war geew gi yàgg maar Coly Faye il est trop confiant le am na apport Reug Reug ñëw na jàppale si ko waa Caaroy ñëpp ñëw ànd ak moom ngemb ko mu ngay weer lang ja eh! toj na ko la ilaha illallah xani fa la ngi noonu xoolal mu ngay waaxu xele ba ngay waaxu waa mais lu waral patar waxul de bu kilew too nandi waxul mu ngay waaxu eh, eh. doole concentration bi ëpp doole ñoom ñaar défaite interdit la nandi fall la noonu bu Grand Coly Faye nuyu naa la Coly Faye nuyu de mu ngi waa xula dem mu ngi tey bal waa mais waa mbar naa def bal bi lan ma kaa jox man maay mbër joor waaw mbër zone moo nekk nii waaw. non. pas sax. yaa ma xam. ndeysaan xoolal lu gis ci lamb ji xoolal mbar maa ngi téye bal bi. léegi mooy mooy joueur yi la dimbar mbër waaye ci kanam daañu xam ndax da koy passe adversaire am wala a mën na fubal. te mën na fubal trop. billaay ñëw arène nationale lañ jëm incha suba suba bëgg nañ koo wàccee demoon nañ deuxième mais bëgg nañ dem troisième incha allah incha allah waaw. ñu ngi ñaan amateur yëpp ñëw rek double moteur fëgg la rosa ngi waaj bu baax ay camion lay luye ay camion pour ñu dem stade ma wax la loolu. jaay ko. Minima ak Baye Talla Babacar. Baye Talla caaro yi la jóge defe naa loo looloo am sur mer. Milima jóge rek énergie. waaw ci Modou Lo xoolal Baye Talla yónnee na ko benn waa ah, Milima ngi fay waaye dalul xoolal waa Milima lu muy def ni ah waaw mais Baye nag mi Baye Talla moom saf na sap ah. laal na ko ñaar de waaye Milima moo ngi ne teg Milima moo féete suñu càmmoñ Baye Talla suñu ndejoor ñu ngi lewoto ah ah Milima ñam na ah fayu na de Minima Minima Rock Énergie la woon Rock Énergie jëm Modou Lo xoolal Baye Talla door na Minima jël ko mu bañ songoon nañu Babacar jàppante yàgg borom bopp <laughs> eh, na waar kenn du yàgg eh, bul tudd loolu ah des na ko tudd laax daa baax biram du dong de biram del lekkab laax mi ni maa jàpp na ci la laaxu karaw baax na laaxu sànqal baax na sombi nag eh kii way naa way asu jang mën naa way ndeysaan xale ba caaroy la wallaay tar bi yoo gën a wóor. eh day bañ ay waay. Eh, waay mu nañu waay waay wayu waay. eh perma daa war a xajam. daa war a xajam. làmb du conférence. foog mu xajam. alors que Maxime Marga daj na fi. Birima Kalgal na ko dugal na ko ah jaxabal milima mi kat. bañ na da ko bëggoon ca xabal de. bañ na waaye Baye Talla kenn du moom. bañ na. xam nga xale bee di woy. waaw lamb des koy way ku mën a way la doon. ah Baye Talla door na. milima dama ne songi ko. waaw songoo ba. ñaari xale ñemente nañu Babacar xoolal. songoo ba Baye Talla jàpp na ngem. milima amagul ngem mu ngi koy wut. na wëri ngem na wëri ngem. mu ngi koy wër ca ginnaaw. jàpp gën a wóor. téye na benn loxo gauche ba. jàpp gën a wóor jàpp dëgërul jàpp dëgërul ngemb la. jàppante ah Baye am na ngem Baye Talla am ñun minima ñu woon ginnaaw eh Kor Mama Koro maak Boucar Ndour xoolal milima lam ko def Baye daan na ko waay daan na milima ah waaye mais Baye waara ah. mu ngay fecc daw na fecc na milima daanu na Milima daanu na ay waay yàgg maar Milima jógal sangu ji oh nañu Milima caaro ngi bëgg te biram ah kay bay taala daan na jëlal mali xoolal bay taala la muy def fecc na laa ilaaha illallaah ah waay bii fecc xanaa max mbargaana ko ko jàngal e xoolal <laughs> xele ba toj na fa bay taala Xeeru Ngor jàppat jàpp na daba lu xew nañu jàppante ba dib na yàggmaar jàppante nañu ehe eh. Bathie Seras moo noon ginnaaw Xeeru Ngor jàkkaarloog ñun Bathie Seras ak kenn ku ne yaa ngi téye sa morom bu baax ndeysaan kenn ku ne yaa ngi jàpp sa ngembal morom ñu ngi deme wet ñu ngi deme wet excellence moon won ginaaw xeeru ngor ndeysaan kenn yaa ngi yàpp sa ngemal morom taxaw action gëj naa am Bathie Seras ah Xeeru Ngor Bathie Seras de ko ndengeñ Bathie Seras de ko ndengeñ yàgg maar yàgg na ngemb la waaye dafa mel ni jàppal Bathie dese naa baax ndeysaan Bathie Seras da ko ndengeñ xeru ngor moo ñu won ginnaaw ndeysaan ah, ah, lu ma dal koy gësam Bathie koy gësam ah tere ngay wot ah xeru ngor a ngay ah, na garagol ba jàpp ah lay lay la la xale bi mbootante nañu mu koy yëkkati bu bañ war na ko lay lay la la xale bi ñaari ba doom yi jógaat mboot ko mu bañ Bathie Seras waay laa ee eh, ñaari xale lu ñu bëre doy na waar laa ilaaha illallaah ñaari xale yi laa ilaaha illallaah ay waay arbitre bi na ñaari ñoo ngi teente jàppante bu baax bëre nañu ilaha illallah jàppante nañu taxaw ah biram bàcc am na jom non wane na fulla arbitre bàyyil lu xew waroo atte arbitre waroo atte warta atte bu famu famu atte dañoo jege saako ya mais bàcc mi bëtam bi yaa quelque chose am na jom de loo ci mën a ah, ah. ay fas aw ngelemu aw mbongu ngelem ak mbongu waaw mais fas yi suur mbengok ay eh, eh, waay buñ ma joxoon benn bi ma yóbbu ko bawol nawet bi di eh. waaj xoolal ay Sam Mbaye lu mu def waay Sam dekkal na cosaan waay Bac Seras à Babacar joxal ma xanu jàmbur ñu ngi lewato ndeysaan xeeru ngor bàcc seras ñëwaat nañu ca combat ba ñu ngi lewato Babacar xeer ak bàcc Babacar joxal maa bañ duma ko ko jox biram ëpp naa daf maa digoon ay weer ba tey joxuma ko ah dige la waaw moo tax ndeysaan xeeru ngor moo jàkkaarloog ñun waaw waaw seen ñamante bi léegi saf na sap waaw du mën a ñàkk parce que bëgg ta daanu ndeysaan xeeru ngor it ñaari xale ndeysaan bàcc seeraas a nu woon ginnaaw bàcc seeraas numéro 2 xeeru ngor gis nga bàcc sànni na benn droite seeraas il est ndeysaan dagg lew tooba xeeru nga a jàkkaarloog ñun bac seeda san woon ginnaaw yàgg maar ci machine bi ci caméra bi ndeysaan Taala Njaay Taala Njaay tey ñëwul tey taalibe Cheikh Ibrahima boobu lamp babul muridina ñaarim la yaroo Taala Njaay ndeysaan di ko ñaanal rek séeri lebu aha waaw nañ la la ñu avertir bañ passivité passivité day mooy bañ a bëri loolu arbitre sifflé na waaw ñu nga ca seera suñu ndeyjoor xeeru ngor suñu càmmoñ ñu nga nattante kenn ku ne pied droite nga jiital Babacar ñu ngi lewoto arrangé mu nga njool ak ndaama boo ko bi du neex ci yow yow ndaamali jaxasoo bee koy gën neex ah temps ba jeex na arbitre sifflé na ah Bac Seras ah Bac gaay gaay laa ilaaha illallaah away away daan na Bac Seras bokkuñu bokkuñu ah. tolloowuñu xeeru ngor na Bac Seras xeeru ngor daan na il n'a jom ji la. jom ji bari na mais tolloowuñu. ndeysaan. kumba joo me a ñaabara fi joli duuru ñagatele duudu jaajate dey bajoobi aja warami yole duudu jaajate dey kubase wafanyana lay nukisaara yoo fedee Babacar lam koy defal nii lan la. rakam la ñoo bokk ndey ak ay magam la. Ah. non rakam la rakam la. kii mooy Modou Lo mooy ànd ak Boy Niang bu Dégol. waaw mais dafa jël mbub mi. waaw ay bagage la. Ah. ay bagage la biiram. ay waay la. lamb doy ay te jur nag. xoolal na mu sànnee pitax ba. waa ci yàlla yi la ko jaarale mu dem. lamb doy na waar. waa lamb mi tudd lamb sax xamul lamb. xarit baa ngi xool eh Coly toj na nen ba Coly toj na nen xarit baa ngi xool ngembale ci ginnaaw nee na ko defaraat ko nandi far suñu ndeyjoor ndeysaan biram Coly Faye féete gauche di wax ñoom match mooy arbitre combat bi di leen wax li règlement yi bëgg ak li mu bañ kon ku ko def buñ la sanctionné yaa ko to tooñ sa bopp ndax làmb da am ay règlement bu biram ñing xam nga ñaari mbër yoo xam dañoo jóge ci defet waaw ñoom ñaar ku ci ne fi ngay mujjee fii dañ laa daan kon xam nga mooy moo loolu mooy ko daanu tey ko li fay gàmmu ko mujj a daan ndeysaan ndan di fal kii di soq ko mujj a daan mu mel ni que kon ñoom ñaar ci ay defet la ñu toog loolu am arbitre sifflé na ci ndeysaan arbitre sifflé na ñuy doxewet ñu ngay doxewet taxaw nañu kolifa yee ñu wan ginnaaw ah songo nañu daa doon joor door bu joor loog moom xeexuñu jàppoo ah kole ngay door ci suuf ah lu eh Ndandi Fall mu ngi ko doon yóbbu si tey de Ndandi Fall bëre la bëgg a def bëre la bëgg def Babacar ko bëgg def taf ci ah, ah, mu ba fu mu jëm ñu ngay bëre de ay la la bëre ba doy na dande koli dandi fay oh, jël na ko daanoo ah, ñoom ñaar dañuy jëlante dañoo bokk bëre Babacar waa koli day door dandi fall di wër bëre bi xoolee mais bëre bi lay wër koli bam ko jëlee léegi da jël ba yaakaar ne gën na ci moom bu jëlaat ko même jël bi la ko jëla ah, même jël bi ndeysaan dañoo tafante wet waa wet lañu bëree foofu ah Nandé Coly Faye ngay door tafu wet bu amante Babacar damay ragal mu sees ko. waaw xalaat naa dinañ tafonte de. ñu tafoo léegi Coly Faye na ko daf ca yàggul Coly ñu ginaaw ginnaaw. ñu nga ca ba tey de. jàppante nañu. ñu nga ca de. waaw mu ngay soroxal ci suuf. waaw ndeysaan Coly Faye numéro mu ngay ah ngay door Coly Coly Faye ngay door. ci Leewtoo TV diggante yàgg maar doomu ndeyu Kempes ndeysaan borom laax bi eh yàgg fay borom buur borom buur borom drapeau bi waaye na ah. mën a taala Njaay ah jege nañu vingt heures seize minutes Babacar drapeau Luc Nicolaï la eh, nuyu doom bi ko fi teewal wi a gisee. ah songoon nañu ah daf na ko daan na ko. laa ilaaha illallaah Coly daan na ko. Coly daan na ko Babacar. daan na Biram. da koo jaay doole. doole yi bokkul. doole yi bokkul. ndeysaan. Coly Faye ñoo sotti ndax ma. ñun lii la bëggal dañoo bëgg ngay entraînement yow mbër nga barki Seydina Mohamed ñun lii la bëggal yéen a ko gisandoo Coly Faye daan na Nandi Fall jël bu set wecc daan ni jaaxle na waaye il n'a pas de looloo fi xewoon fii Sambay production organisée tournée de la publique Nicolay yàgg maar ci caméra bi ñu ni équipe Leewtoo bi yëpp fatewuñu kenn ndey Kumba Fall jërëjëf waaye Aïcha drapeau monsieur Diaw bu ko kenn fàtte ñëpp nañu ñëw seetaan